Euh, bi nga xamante ni police ñëw na dem si guddi fekk janatu ma waa sa cant ya ñu jël ko yóbbu ko bi ñu ko yóbbee gëtam ko mu avoué ni moom moo rey ki nga xamante ni mooy euh, Aziz Dabala ak Waly léegi nag ni leen rey laa leen expliqué. moom mooy wax. Euh, mm-hmm. nee na dafa dugg ci biir dafa ñëw ci biir appartement parce que yàgg dafay ñëw di seet si ki nga xamante ni mooy Aziz Dabala la. Mm-hmm. léegi nee na bi mu ñëwee mu ñëw di ko demande xaalis. bi mu koy demandé xaalis Aziz na ko yoruma xaalis nee na si la génnee paaka jam ko ko. bi ko jamee paaka bi récupérer téléphone bi bi muy récupérer téléphone bi nag après si la xalaat ni bi muy dugg ci biir kër gi euh, booy waali gis na ko mu ne nag hmm. bu ma ko reyul dana ma boole léegi si la dem fekke ji waali si biir euh, néeg bi jamaale ko rey ko jël téléphone am hmm. aussi téye ko donc mu téye li nga xam ne moom mooy ñaari téléphones yi euh, dem ak moom mais bi mu demee moom a wax na nee na compte web bi xaalis bi ci nekkoon moom neen du mu moo ko vidé caay ay waxam moom neen bi ko gars yi gëtame wax mu ne moom vidéowul xaalis bi nekkoon ci compte Wave bi mais daal leen xam na ni moo rey Aziz Dabala teg ci waali récupérer seen ñaari téléphones yi dem ak moom donc moom la euh, Lamine Diaw ñu koy wax Modou Lo loolu la avoué jamono ji téye nañ ko mi ngi police jan janatu nga xam ne moo nekk Touba euh, en attendant ñu koy transférer indi ko Dakar donc loolu mooy information réelle bi quoi allahu akbar mais loolu lool na de mais nga yaakaar ne benn nit benn nit mun na def loolu noonu non mun na nekk parce que mun na comme li mu wax expliqué. dafa rey mhm. dafa rey dabalaa ba pare. waaw dem dem bi mu ko rey ba pare si la dem fekk ji booy bi si biir néeg rey ka. allahu akbar parce que dafa yaakaar ni bu rey woon booy bi. Euh, euh, booy bi da koy dénoncé quoi. effectivement parce que léegi bi muy dugg si biir kër gi booy gis na léegi looloo tax mu mhm. mu boole ko ci mu reyaale ko léegi na pour mën a masquer li nga xam te mooy meurtre bi. mais heureusement ba crime parfait amul. wax na ko nit. kim ko wax nak xamna fofu la ko yalla doon wéré ba voilà kooku ki ko police ñu jël ko dembu ci cant yi fofu yobbu ko donc pour pour pour pour pour jeexal xamna am nañu bëgg wax euh pour wax rek pour gaay des fois bu meurtre amé ñu té té bañ ci tuumaal ay parce que lu ndé gaay ñu ngi ci wax japp nañ ay gor tout mal ci li nga Euh, ñu fekk yëguñu tinuñu quoi imaginez yow Tony nga nekk ak sa xarit ngeen ngeen nekk tout le temps ba ngeen gëjee gisante yàggu ñu rey ka yow naqar boobu nga koy dund nga ñu ñu la yaaka rey imaginez yow dugul naqar bi nga xam ne yaa ngi ku nekk di ku nekk nekk di nekk expert quoi si yi ah, ah? nekk nekk expert te yow police li ñu nekk di def nii enquête yi nekk def nii dañu koo jàng dañoo jàng ay at lañ toog di ko jàng ba maîtriser ba xam ka yow bi nga xam te ni jàngoo jongoo xamoo lu meurtre xam xamoo scène de crime xamoo euh, ay kii xamoo dara nga jég ba si yaa ngi rek bëgg di tuumaal ay nit chaque jour di def ay live naan diw diw diw ba pare nag di wax ni ñi nga xamante ni ñoom tuumaal nañ leen mm-hmm. nañ def seen plainte. merci beaucoup surtout jël vidéo yi nga xamante ni tuumaal nañ leen ka ñu déposer ko gis nga ñu leen tuumaal képp ku ci teg tàngam Sénégal dinañ la arrêté. jàppale ba loolu moom moo nekkul lu rafet quoi. non billaay lu leer na nañu quoi ku nekk génn di. di social guy, ku nek genn say di wax di wax lo xam ne dara woru la ci mais newona gay bay len police mu def liguey mon police senegal dama ko wolu franchement nañ quoi nañ de tooñ nañ de tooñ nañ nañ ay ñoom na bu lay ak yeneen gars zone tudd borom casque bi tooñ nañ leen quoi tooñ nañ leen te ñooñu franchement daf ñu dara seen xarit lañ rey. seen xarit lañ rey ba pare aussi tamit am ñeneen ñu si doon nit doomu aadama ñu koy suturaal. daam ah. ah. ñoo xamante moom daam ñoo moom saa yi ñooñu moom ay mais franchement Sénégal dama dem ba jàpp ni suñu léegi daf mel dañ koo dañ koo raxas quoi def ci yeneen quoi franchement ñaaw na trop mais di la di la jaajëfal quoi di jaajëfal aussi. si Allah Allah Allah ya